asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV comme ni ngeen ko xamee nag ah saison bi yàlla dogal na ne ubbi na depuis samedi passé le premier octobre ñu ngeen seetaan ñaari làmb góor production ubbiku ca samedi ja ca terrain gaal gi bët set dimanche ñëw jax teg fa nga xam ne ni moo di ca fa nga xam ne moom moo di euh, Iba Mar Diop 3 millions maanaam kon soo bëggee dégg dëgg sax ajjuma moo nekkoon premier octobre maanaam ko samedi ak dimanche yëpp amoon na ay lamba waaye nag dafa am leneen li nga xam ne tamit da ce gën te neexat yi mooy le 10 octobre ci la làmbi door ji commencé ñi koy commencé nag mooy ñi nga xam ne ñoom lañ ajoon seen journée muy waa rent DKR te buñ ne rent DKR nag xel yi day dem ci Pape saar bu Pikine xel day dem ci Jimbo day dem ci Alain ak staff boobu yëpp yàlla dogal nag tey comme nag fi mu nekk nii jour ji mooy 3 la ñuy wax ngir fiy ak dimanche moo tax ñu ñëw seet si Pape fas ko yéene laaj journée boobu ñoom fu ñu ci tollu ci waajal gi ndax bu jëkk pare woon nañu defe naa ne mais tey nag sama waa moom tey daa mel ni jas neer la laal sol yére olofam mu mel ne fi mu nekk nii xel mi daal na maa ngi lay ziar Pape borom Pikine laa lay tuddee waaw dellu ziar Babacar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sama caméraman bi di leen ñaanal tey lii yàlla na ko nekk tele bu gën a sut ci télé yi parce que seen liggéey set na rafet na wax dëgg yàlla yow moom dañu yàgg da nga baax maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax yaa xam li nga bëgg ci lii yàlla na ko suñu bor yàlla na suñu borom teg loxo di waaw di nuyu nag may seetaan yëpp di nuyu diaspora bi di nuyu waa kër gi tey fii may yeewoo tey muy kër Lobaat suma waaw maa ngi koy nuyu baax di ko ñaanal di ñaanal tey suma maam yi nga xamante ne tey ñoom ñoo fi jóge muy ñoom baa Keccel baa Ibra baa Lobaat xam nga waaw sam euh, sama maam Rabi sama maam ñulla ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal waaw di ñaanal tey di di di nuyu tamit suma yaay di nuyu mama Lobaat moom mu ngi ba Memphis ak ñoom abu Sall maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tey suma benn frère mu ngi foofu tamit Lyon mu ñu ngi koy wax Lobaat doomu baax keccel la moom njabootam yëpp di nuyu suma frère boo xamante ne tey lii la ma décoré iPhone douze Pro waaw kii Abu Dia moo ko décoré iPhone 12 Pro la ma décoré non Abuja moom wax dëgg yàlla moom daf maa bett dafa ñëw rek ne ma demal ci CP bi ma foog ni xam nga benn Samsung la ndekete waaye ma dama dama affaire dafa ma sax jëlee kaw quoi lii du dara sax parce que tey mais lii dafa rëy muy Abuja mu ngi ba Lyon waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ñaana doomam boobu nekk Saint-Étienne di fubal maa ngi koy ñaanal waaw sant doomam mu ngi sant kenn di fubal di ko ñaanal fi ñu dégg ñoom Pape Abdou Cissé di ko dégg ñoom Sadio Mané yàlla nañ ko fa dégg waaw di nuyu rakam Sia maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu nag diaspora bi parce que diaspora bi dañoo jàpp ci combat bi kenn du ñoom ñoom Seexu Naasi ñoom Toldo ñoom euh, kii euh, euh, su ma limee daal damay juum sama waa ji nekk yaraax waaw waaw Serigne kenn du kooku Serigne Ndiour Serigne Ndiour nit ku baax la ba pare nit ku dëggu la maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sarko sarko bu Grand Yoff mbooloo maa ngi koy nuyu bu baax ak képp koo xamante ne rek jàpp nga ci di nuyu Alain Jimbo Jogay day tudd Labat Fall lu bëri daa mel ni Pape Sarr euh, halpulaar la de waaw <laughs> man ci bolo la halpulaar la waaw tey moom waaw dañ koy ñaanal rek parce que tey lépp lu ñu mel moom la tey bu waaw suñu maam Labat la waaw bu soo soo demee ba nga xam ne man dam koy wax lu wodd sax duñ ko for moom moo tax tey dañu doon soo gisee may def lii si moom laa ko gisee parce que tey jeunes yi da doon gis fi silmaxa Sénégal yëpp ñëw fii ku si nekk mu jox la sa lim lay jox muy muy lafañ muy silmaxa dégg nga tam xarit jot secteur bii képp kuy jàkk wala jumaa yewal na la tam xarit nag muy nit koo xamante ne moom moo njëkk yóbbu sam papa Makka ñetti yoon yóbbu sept cent personnes Makka waaw sept cent personnes la yóbbu Màkka gis nga kër gii Cheikh Yaquba ngi fi dugg na fi ah, ah, sëriñ bi sëñ sëñ Abdou Lahad Mbàkke si la jébbalu mm-hmm. sa maam la baat si sëñ Abdou Lahad la jébbalu man sëriñ mbakke gayna Gaynde Fatma moo ma tudd kon tey suñu maam jooju tey lépp lu ñu mel ci moom lañ ko jëlee si moom ñun moom la ñuy tiitaroo parce tey li ñun li ñu def li Lobatt def ñun xaaj bi xaajaat bi defu ko ma koy ñaanal yàlla na suuf sedd si kawam yàlla na suuf sedd si kawam xam nga di di xam nga di di gis taxawaay boo xamante ne tey nguur gi ñu ngi koy def ci famille bi comprendre nga tey bi mu bi bi bi mu làkkoo gis nañ fi ñëpp Macky Sall ñëw na fi ku nekk ñëw na fi xam nga mbokkam yëpp ñëpp ñëpp maa ngi gërëm famille bi yëpp ñu nekk tani ñu nekk Fuuta Cubalel bog boggee bokki cubalel duungel ñëpp maa ngi leen di nuyu. ñu lee Haalpulaar ah. macha allah am na mi sal min salmini man onon foofu minin salminoon eyo ma leen di nuyu ma mbokk Haalpulaar yi sama jaam yi parce que man séeréer laa te ñoom ñooy samay jaam. waaw xaw ma waaw ah, def naa la demee nangu naa waaw tey nangu naa waaw suñuy jaam tey moom nangu naa waaw. Ah, <laughs> tukkulóor jaamu séeréer am na solo macha allah Pape Sarr mais Pape fi may ñëw léegi defe naa ne ku ne xam na ne seen journée bi ngeen doon waaj mu nekk journée bu rëy boo xam ne mm. manoon nañ ne c'est la première fois mu am ci làmb ndax ay grand combat yu toll noonu ngeen dajaloon ko ci benn bés mm. Mm. coronavirus ba ñëw ñu aj ko ndax dafa de sécurité affaire yu mel noonu mm. yàlla dox ñuy doxaat di doxaat ba ubbi saison bi ajjuma ji passé premier octobre dimanche di le 10 incha allahu rabbi ngeen fas yéene ñëwaat fi nga xam ne moo di arène nationale ak làmb jooju actuellement fu ngeen toll ñun pare nañu ba pare dernier réglage la ñu toll mooy caravane bu ma war a def samedi am waaw boo xamante ne tanooru Pikine ak tanooru géejawaay bëgg naa ñu ñëw ci L200 bi ñu wër pikkin géejawaay jàmm gën pour waa Pikine ñoo fay ma sama bor caravane bi damay damay jaar tali bu mag tali bu bees Icotaf ginnaaw raay pour ñu ñëw ñëwal ñëw silma parce que si secteur boobu noonu secteur yooyu lu nekk am na lu fi Pape Sarr def parce que soo xoolee ginnaaw raay bàcc seeraas wala dëkk taxaw naa ko ba Sénégal yëpp xam boo demee boo demee ginnaaw raay Jordan fa la dëkk ondu la fu fa dëkk naaru sogaas jadli soq nga ñëw ikotaaf ëmma seen xam nga ëmma seen Tyson euh, Gambien mbëru géej mbër yi nekk ikotaaf Pikine yëpp nga ñëw si Sotiba xam nga nga ñëw da ngay wax baabooy da ngay wax baabooy wax wax Ama Balde xam nga ñoom Zil Balde man daal maa ngi woo waa pikin yëpp ñu ñëw samedi gatoon ñëw gunge ma ñu wër pikin ñu déclarer lamb ji. caravane Pape Sarr pour ñu xam ni. ma pour le 10 pour ñi nga xam ne ay nitu Pape Sarr lañu. mag naa wan stade bi mbër yi man ëpp ñu ma mbooloo. maanaam da ngay mobiliser ni mbëri. mobiliser comme mbëri. da nga caa woo mbëri géejawaay. dama woo mbëru géejawaay yëpp mbëru parcelle mbëru jàmm gan. invité naa Balla Gaye Balla Gaye 2 Alioune Seye 2 Lirou Diane Lac de Guiers kenn Modou Lo invité naa ñëpp man bàyyiwuma kenn Siteu bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn te ma xamal la benn affaire kii day mobiliser de booy euh, booy bi séeréer yëpp dañuy ñëw Kalmu Ndour waa grand Mbagnick fii école école booy ñaala ne booy ñaala nekk day mobiliser gis naa kenn na ko waa dëkkam def ak moom ci open press ba mar faa fa ko seen junior tamit day mobiliser. marle ñëpp gis nañu open press am bi nu mel. ne ko rellu noonu. xam ñun fi mu toll nii man xam naa xam naa li may xaar dimanche. ana Ibou Ndiaye Obali. mu ngi fii di pare ñëpp a ngi pare. ba pare dafa am drapeau Samba Sarr suñu ndijaay boo xam ne tey tukulóor yëpp ay génn di nga gis cosaanu tukulóor. si làmb ji ñoom Ba Ibrahima Mbuub sama suñu géwél yi ñoom ñëpp dinañ ñëw ci stade bi képp kuy mbokk Pape Sarr rek ak di am di jàmm Pape Sarr maa ngi lay woo dimanche nga ñëw taxaw ma dimanche di nga Babacar di nga gis fii loo mosula gis ci làmb waaw waaw tey bu ma la laajoon maanaam mm, ticket yi ak yooyu fu ngeen ci toll pare na wala bu paree prix yeeg yooyu waaw ticket bi mu ngi commencé ci deux mille bi ci gën a yomb deux mille la cinq mille dix mille cinq mille dix mille cinquante mille waaw mooy ticket yi mille cinq mille dix mille cinquante mille moom mooy ticket yi kon daal amateurs yi nañu xaar euh, dimanche maanaam spectacle de haut niveau bu bu kawe kawe kawe kawe ak rent lu lu lu doy waar mooy am lu doy waar xam nga ma si yéen nag lii bu amee yéen ñii la parce que tey yéen a ko yaatal ba mu dem xam nga soo xoolee amul benn tele boo xamante ne tey rek jàllale na suñu làmb ji site internet yi la site internet yi ñoo xoolal tele yi télé yi ñu wër amul kenn koo xamante ne taxaw nga wax suñu événement mais man dama leen di sant yéen parce que tey bu demee ba affaire bi egg fii yéen la yéen ñii la ma leen ciy gërëm bu baax a baax a baax a baax may wax Alain Jimbo ubbilal ñoom ñëpp porte ñu dugg site internet yëpp ñu jël suñu mbër ak ñu jël suñu mbër nag laa ci yemale ni ngi leen di soxlaa ñoom loolu la ñuy soxlaa ñun dañ leen di soxla ba pare dañoo liggéey ci affaire bi waaw dem nañu ba foofu képp koo xamante ne tey dem nga di taxaw suñuy mbër man maa ngi leen di woo Alain Jimbo ñin ñi nekk rent Dakar man da yombalal naa leen man ma kenn man terewuma kenn parce que tey ñoom dañ cee def liggéey bu am solo amul benn tele boo xamante ne tey mu ngi fii muy tele bu mag boo xamante ne tey wax nga suñu laam à part Lamine Samba Lamine Samba waaw à part Lamine Samba taxaw na parce que man invité na ma jongante ma wax ci mm. mais yéen yéen a def liggéey bi yëpp yow li TV ak ñooñu site yi site internet lu ma wax lu ma tudd sax site yëpp laay wax su ma ne ñëpp rek bàyyiwuma kenn. mais sa diggante ak Alain ak Jimbo ak Jogoy relation bu fu mu jógee. waa xam nga tey nit ñaa ngi naan Alain. téléphone bii laa laa laa mun naa ko teg sa loxo. képp ku taxaw dafa am nekkoon loo xam ne dañ doon jaar ci suuf képp ku taxaw ne Alain nii la tudd ma may la téléphone bii. Alain Alain la tudd. ku ci déedéet képp ku mun a jaar ci turu Alain barke rasulullah képp ku wax turu Alain ñëw ma ma jox ko téléphone bi man ak moom 30 ak léegi boobu tukkiwul ma nekk cité Hacienda gis nga cité Hacienda boobu ma doon toog ubbi fa sama dibitari tey ay magistrat génn nañ fa ay procureur génn nañ fa ba ci Alain bi ay milliardaire ñoo doon toog sama dibitari may def ak ñoom teraanga li ma lay wax nii du tey yàgg na am na du tey démb la tey du tey du tey sama sama mbokk la ba pare man buuram laa <laughs> parce que déedéet du séeréer de moom maccudo la ah, maccudo séeréer ah, <laughs> ale di ku baax waaw maa ngi koy jaare giyaan ngom la tudd damay jaar ci tur bi ah, giyaan ngom giyaan ngom bin fasar mu ngi dëkk faajut doomu séeréer pire doomu séeréer pire la. comme ja la war a changé. yaay ji yaayam yaayam ak Lac de seen ñaari yaayee bokk ndey ak baay. Lac de Guiers 2 Lac de seen ñaari yaayee bokk ndey ak baay. Lac Alain. la gën a bokkal koo gis. ci làmb ji ci làmb ji. tey mbokk mënu koo paase mbokk ndey koy jur la olof Alain bii mooy liggéeyal tey. nga secret bu doy waar lu kenn xamu ko. waaw ak Lac de Guiers. Lac de seen ñaari yaayee bokk ndey ak baay. hélas olof ko wax fee. waaw mu ngi tudd Giyane Ngom. Giyane waaw Giyane Ngom. mooy Alain. waaw. macha allah am na solo Alain ñu koy nuyu di ko jaar ak bi yëpp mm-hmm. mais tey euh, làmb ji mu ngi ñëw. am na ay quelques kii sax yu ci am ay quelques yëngu-yëngu. ba ay ay ay ay mbër yoo xam ne ci liñ jéggi mooy du ñu bëree si. Mm-hmm. ba ay aj écréek aj ménage aj mbërëg yooyu am ci. Mm-hmm. loolu yéen ñi tëgg tamit bés bi nu ngeen maanaam ban gis-gis ngeen ci amee. waaw muy affaire bu ñu bett parce que bi affaire bi di commencé dañuy toog ba trois heures du matin di def appel à quatre man Jimbo Alain mobile de mu nekk affaire boo xamante ne tey tey bu demee ba mu ba mu demee nii daf may metti trop parce que man mobile suma frère la mobile suma frère la daf ñëw tooñ daf ñëw tooñ de. ñu leen tooñee waaw daf ñëw tooñ parce que tey lii damaa am droit wax ci. gis nga contrat yi mobile encaissé xaalis turu jimboo nekku ci turu Alain nekku ci Pape Sarr moo ci nekk bépp mbër bu encaissé ay millions. maa si combat bi sama tur nga ko signé. contrat yëpp ma maa ko yor sama tur la nekk nekkul ci turu Alain nekkul ci turu Jimbo kon tey man dinaa ci wax mobile 2 buy tukki bu waroon tukki nekk ci contrat ñun ñu may bàyyi ko mu ne day kut day day day signé ji fële ci mooget géet te adversaire am ñëwul na ñëw bëre si gis tooñ baaxul man nag damaa négocier ak moom ba sonn def naa ci lu nekk dégg nga tooñ baaxul man nag li may mettit lu mooy écurie bi ñu aj écurie Grand Yoff mbooloo bi ñu aj man waaw. moom ci écurie la bokk di. waaw ci écurie bi la bokk mais xam nga am na ñoo xamante ne tey yëguñu bi mobile di jël avance tey si làmb la ñu yaakaar man li may wax aj bi na na na concerné ñaar ñi. ménager bi mbër bi man. yow daal aj bi pour yow mbër mi ak ménager bi rek lañ ko war a def. kese nañu jël li ñu aj euh, euh, écurie bi. dollil ko menacé bi ak mbër bi. mais écrit bi association la te association tamit ku ci bokk. noo mbër gis nga écrit bi. dégg dama ne la man am na mbër yoo xam ne tey boo bokk nañu ci aj bi ñu sax mobile am na combat wala jël na avance. mais est-ce que écrit yi tamit nañu mbër yi léegi. si si parce que tey gi tey tey euh, licence bi ngay am nii tey bu nekkul écrit bi non doo ko am kon xam nañ ni mbër bii. tey man maa ñun ñoo ko nangu ñun ñoo jël ñun ñoo nangu ni tey na dem bëre ji ñun ñoo nangu na jël avance mbër bi écrit bi yëg nañ ci écrit yëlif nañ ko gis nga ma kaaw Malick Ndiaye 37 pou daa dem benn écrit ñu laaj ko 25000 man maa récupérer licence bi dem fokkor ci loxo ëmmat seen ak la ñang ñaan leen ba ñu dugal ko. ñu dugal ko fa ñu dugal ko taay si nga kon yow Malick Ndiaye yaa ko ñaanal pour ñu Eumeu Sène man ma ma wax a wax a wax a wax wax ba Eumeu Sène nangu ak la ak xalifa président def naa ci bay bëgg a dee Eumeu seen xam na ni man xam nga munuma bañal dara mu dugal mu dugal ko écrit bi mais barkaati démb lañ ko introsé moom Malick Ndiaye 37 fu mu naan mbër bi moo gën a tàlli mbër yi yaa ngi fàttali yow ci nga nekk xeeb sa bopp dégg man ñëw ñëw xoolal takkal ma lu nekk ne ñun dañoo jox buusita da ngaa taxaw ne Bou Siteu nga faral. déedéet xam nga lan moo indi loolu. dama toog mu jël sama photo def ko ci YouTube bi na ñun dañ ñoo jox cinq millions tout malement ma ne ko waxuma lool dama ne bu nekkee li nga wax moo am balaa journée bi yàlla nañ ma robi mais yow tamit li nga li nga ma waxal bu nekkee ay sos la yàlla nga dem Bou Siteu door la nga daanu foofu laa waxee mais waxuma Bou Siteu laa faral ma ne la combat Malick Ndiaye Bou Siteu dama ci neutre parce que samay ñaari rakk lañu combat Kalmu Ndour Eumeu Sène Junior dem ciy neutre combat Pakola ak ki muy man dem ciy neutre waaw dam ciy neutre sama yoon nekku ci yére boobu summi naa ko de sama sama rakk la sama doom la sama loxo lañ ko teg sama loxo lañ ko teg parce que tey bu kër gi nekkoon deuxième étage man leer na ma ne moo koy huitième Pokola moom Pokola. tax nga wax dama koo xam dama am fu ma ko teg. ci mbër ga mbër bi. lépp ne Pokola Ama Balde. man Paate Balde laa koy xoolee. lépp loo lu la ci Paate Balde rek mu ngi ci xale boobu. fit wa na fit bi. waaye bébé itam du kenn du dem. du dem kenn moom njaago bu xale bu mën a bëre. dafa mën a bëre ba pare am am am gétt ginnaaw mun na bëre mun na lépp. caatu mook caatu fa ci caatu ci caatu fële caatu benn tali la xaw ma mm, mais tamit am nga kii ci am si taxaw ma la génnee Pokola si am si ta xeex moom door ko mu daanu mm-hmm. comprendre kii tamit joge ci combat bu garaaw bi daal mais tamit tey combat bi indi amateur bi yëpp mooy Laurent Laurent Ndiago Laurent Ndiago abuku papa abuku papa waaw moo ko euh, moom démb moom taalibe sëñ Modou Kara bi waaw kii booy plateau waaw booy bi nekk face bi li may dellu si affaire bi daal mooy ma koy ñaan njàmbe di ko ñaan biraan seen mooy tey daan bi ñu teg écrit yi man Pape Sarr man sama waxu bopp laa wax waxeewu ma ci cadre Alain waxeewu ma ko ci cadre Jimbo daan yi mu daan écrit yi na ko teggi daan ko ki encaissé xaalis bi ak ki lekk cinq dix pour cent yi. te mu bàyyi bi daal mu bàyyi écrit bi. ñi lekk xaalis bi ñoo ngi la ñu war a daan. mais est-ce que déggante ngeen ak ak ñi nga xam ne ñoom yéen ñi tëgg laam ji déggante ngeen ak mbër mi déggante ngeen ak manager bi. man su ma duggee ci live Instagram ñu dugal mobile li may wax ni Mouhamed Ali Ndiaye mu seetaan def na si jéego bu nekk mënul sotti su ma duggee ci live bi mobile 2 bu ma nuyoo génn at nañ bi te loolu du luy defar man suma frère la lu mu bon bon bon taxaw nañu fii jibi aama mu def si ay jéego. bu gisee koy fee ku feebar mu wooma ñun ñu taxaw si waaw man tey gis nañ ko ci ba tàyyi moo dëgg yàlla muy def social ñu ànd ci ñu liggéey loolu moom seede la moom lu ñu gisee tey demeewul noonu da waxeewu ma ay xol ak noonu nu mu demee la moo tax mais mobile xam na ne bu nekkoon keneen la dina doyal sëkk ak barke barke Seydina Mohamed doo doo demee noonu doo demee noonu parce que am na lu ci bëri jimboo man maa ko tere mobile de États-Unis la nekk États-Unis la nekk képp ku lekk suñu avance nga tege ne raw nga yaa ngi nax sa bopp ambassade États-Unis mu ngi fii. kon du ngeen maanaam su ma la déggee kon eh, yéen avance yi ku ko lekk te bëriwul du ngeen du ko ko ba avance bi avance bi ku ko lekk bëriwul na la leer ne fii la yem eggul loolu moom see boo nga fay see nga jàpp loolu ñun Jimbo moom man xam naa nit kooku quoi xam naa ko te du bàyyi ñaan naa nag ba sonnu te am na loo xamante ne jaru ko. mobile 2 na ñëw bëri si wala mu ñëw delloo xaalisu jàmbur wala mu woo jimboo dégg nga man loolu laa koy conseil suma frère la man damay xool ci Zarko bi nga xamante ne sonn na ci gi nga Zarko affaire bi lim ci daj xëy na mobile xamu ko Zarko sonn na ci de woo na ma guddi woo na ma bëccëg man may calmé wu parce que soo gisee nu may waxee nii am na lu nekk sama diggante magu mobile 2 parce que tey pièce sama pièce su scooter yëpp moo ma ko jox du dëgg moom nag dafa bëggu may wax te man bëgguma loolu lu nekk nag mal nañ ma ko mooy ménagère am bi nee man damaa nekk ci ay audio di ko saaga gis nga man audio boobu noonu yoon mu ngi fi na jël audio yi dem yóbbu ko ci yoon yoon yar ma bu nekkee. est-ce que jar na ngeen yegg foofu. non egg foofu. est-ce que ngeen fexe mu rafet. non man bëgg fàllu du rap du fàllu nit ku baax la yow nit ku baax. non bëgg fàllu bëgg fàllu aw ma lenn lu ma koy wax xam nga lan moo tax aw ma lenn lu ma koy wax. keroog bi ñu ne ko signé mu baña a signé daf maa ñëw romb ma ki ki la yow ba signé ak yow jox la xaalis mu romb ma CNG romb jimboo nii la ñu rombee. keroog bi mu defee sorti daane maa ngi gërëm man bëgg a fàllu bu ma gërëmee bu ma gërëmul lan la may wàññi barki démb la fi baab la fi ëmma seen jóge senegal yëpp dégg li sama yaay wax teg ko sama der du dëgg bëgg fàllu nii la ma rombee man ak Jimbo nuyu wu si kenn suy defar si ñun ñii la war a jaar xool nuñ ko arrangé mais CNG mënul defar loolu suy ñëw pour négocier pour ñu xool ñun nu ñuy wàccee lépp lu dal écrit Grand Yoff mbooloo bëgg fàllu moo leen ko teg parce que sa mboroomu ménager yëpp signé nga ne du si signé ba pare nga wëlbatiku demaat CNG naan man damaa juum damaa bëgg signé fekk c'est trop tard. Ah, dafa delluwaat na fa bëgg signé. c'est trop tard. dañoo ah, bañ. dugal nañu lépp dañoo bañ mobile 2 munoon nañ mobile ñaata mbër dumbul la ngi dégg nañ ko ak promoteur yóbbul avance su mbër dumbul arrangé na ko kenn déggul ci dumbul ci dara bëri na ay mbër yu dem ak avance su promoteur fay ko. yéen bu di ngeen jël. dépendre si jimbo rek mu ngi dépendre si jimbo man de man bu dekkoon man bugg naa jàmm am ci diggan suñu diggante ak mais jimbo. ah nee na bu le 10 le 13 dina dem Amérique parce que day dem États-Unis le 13 da ko fay fekk parce que am na loo xam ne man maa wañaar loxoom parce que da ko doon jubaleeg moom ambassade États-Unis ak suñuy contrat ak suñuy plainte ak lépp affaire escroquerie ambassade États-Unis am na yoo xam ne jaru ko parce que man lii laa ko doon moytuloo léegi léegi léegi looy wax amateurs yi parce que fi mu nekk nii moom lépp di li li ñu gën tey bàyyi xel sax mooy dimanche amateurs yi ban kàddu nga leen di mujj lancer pour dimanche incha allahu rabbi ki may njëkk woo mooy mooy Gora président des jeunes amateurs bëgg naa vendredi samedi yëpp dañuy ñëw ci stade bi pour nettoyer ko fu amateurs yi di toog maa ngi woo waa koñ la baat yëpp ñu ñëw nettoyer bi ñu nettoyer stade bi amul loos fépp muy duus yeeg lépp bëgg naa ñax yi fa nekk lépp ñu bàyyi ko defar stade bi ba mu set fi fi fi nga xamante ne tey ay nit ñoo fay toog xam nga may wax Alain ak Jimbo jaaykat yi tamit nañ leen oyofal affaire yi pour ñu mën a dugg ut li ñu si la ñuy am muy tamit ñuy garder tamit scooters yi tamit ñooñu man de sonn ma leen ci dara nañ leen comprendre ku si nekk lu siy sa wërsëg nga lekk ko ci mais maa ngi wax Alain ak Jimbo jaaykat yi nañ leen gën a oyofal affaire yi parce que ñoom tamit dañoo bàyyi seen njaboot te si loolu rek la ñu yaakaar nañu fàttali keroog bi suñu làmb di yàqu dama koy fàttali Alain ak jimboo Jimbo ñëw nañu togg seen togg di jaay si noonu lañ ko yóbbuwaatee kon tey bu bu ñu taxawalee combat bu billet bi waroon nekk 2000 ñun nañ leen ko defal ñaar téeméer ñoom jaaykat yi parce que tamit man dam see teg sama bët kenn man kenn waxuma nettaliwuma maa teg sama bët ñu togg seeni ginaar dugal seen ay table ci biir stade bi gisuñu kenn ma koy wax sam ñi may liggéeyal parce que loolu rek loolu la man loolu rek laa leen di ñaan maa ngi leen di ñaan loolu muy jaaykat yi nga xamante ne tey ñu ngi jaay ci stade bi am na lu metti leen daloon ci suur boobu Alain ak Jimbo nañ leen wàññi billet bi bu nekkee deux mille ñoom bu nekkee dañoo beneen ñu dugg ñu may leen ñu dugal ñaari nit ñu jaay seen jaay kenn bañ leen nag son xatal maa ngi gërëm nag tay gémi yëpp waaw ak ak commandant maa ngi koy gërëm di la gërëm xam nga di gërëm ñoom Max père Max bépp ménagère boo xam ne si nga ak rent DKR ñoom Abdou Bakhoum su ma limee damay juum ñoom ñëpp xam nga ñoom Zalba bàyyiwuma kenn waa CNG maa ngi nuyu bu baax Bira seen tey wane nga di tey tey xam nañu ñan ñooy CNG léegi Bira Sène maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi gërëm njàmbe xam nga kontaan naa ci li ñu def waaw kontaan naa ci li ñu def parce que lii beneen yoon benn mbër du ko def lii ñu def nii beneen yoon benn mbër du lekkati avance su jaamur li may tëjee nag mooy yi daali yi daali ñing ak Assane Ndiaye yéen ñaar yéen a bokk Bawal yéen ñaar yéen a bokk Serigne Touba am na loo xamante ne ñun bugguñu ko di ko yéen ñu njëkk ci làmb ji bugguñu waaw comme promoteur bugguñu ñun ñu koy gis ci yéen te yéen ñaar ñëpp suñuy frère ngeen te ay nit ñu baax ngeen li ngeen di sànnante noonu di waxante suma man bu doon man na ngeen ko arrêté parce que yéen ñaar a bokk ndey ak baay yéen a bokk seen bawol lii daal xaju fi maa ngi koy ñaan ñun ñëpp nañu bokk ndey bokk baay man moo dinaa dëgg sama tànk dem ba dox dem ba yit di gis yi daali gis Assane Ndiaye woo leen jubóole leen képp ku ma si mën a jàppale ci loolu nga ñëw jàppale ma ko ah, parce que je suis partant waaw parce que sama ñaari frère la ñu ñu jote maa ngi ñaan daal képp ku si mën a dox tànku jàmm nga dox si tànku jàmm parce que lii rafetul si làmb ci image u làmb maa ngi woo comme Gaston yow yaay kilifa bi papa Gaston maa ngi lay woo nga dox si tànku jàmm ñoom Fallou Ndiaye ak ñoom ñëpp ma waaw ñoom Pape Abdou Fall maa ngi leen di woo daal ngeen dajaloo ngeen xam nga lii lii jeex fi muy ñu rafetal ko muy jamaykee ñoom ñëpp maa ngi koy ñaan nag Assane Ndiaye lépp loo jàppoon nga bàyyi ko yi daal tamit lépp loo jàppoon nga bàyyi ko parce que yéen a bokk Bawol yéen a bokk yéen a bokk Serigne Touba ak sëñ Abdou Karim waaw bëgg xuloo ku si nekk tey su kii waxee kii wax ah man mii tey kenn moom ma dàq xuloo bàyyi naa yooyu waaw bàyyi naa xuloo naa xuloo yi daali moom tey moom man dinaa foqarti sa loxo Assane sa mag la maa lay yóbbu ba ci Assane Ndiaye nga jox ko loxo même bu la tooñee yaa koy jox loxo baalu ko ak parce que mooy sa kilifa mooy sa mag waaw waaw jërëjëf waaw ku la tey waaw kii Xaadim Jaw moo fi jaar ak góor ne góorandooy wuu góorandooy moo fi jaar bii moom góorandooy mais bu zone bi Xaadim Jaw la ah, waaw bii la góorandooy defar <laughs> waaw ma koy nuyu bu baax a baax a baax mu ngi ba HLM waaw di nuyu nag xam nga diaspora bi yëpp xam nga di nuyu ñi may seetaan ñëpp di woo jox ñëpp rendez-vous dama am sama benn tubaab nag mu ngi ba Suède waaw buggul ku tudd turam waaw sama tubaab mu ngi ba Suède xam nga ku bëgg Pikine la bëgg booy Niang ñu koy wax curxi curxi waaw mu ngi ba Suède waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax moom jënd na kotam bu yàgg di xaar may wax ñi nekk ci Europe bi yëpp côté yi yomb na. nañ ko seen affiche affaire bi seen affiche lay jaar lay jaar direct xam nga képp koo xamante ne tey maîtriser woo affaire bi nga woo Toldo dem ci Buzz li TV xam nga Buzz moom moo gérer affaire yi moo si waaw euh, seen affiche xam nga. code yi daal bu nekkee Sénégal 1000 francs la mais Europe suma jumul juumul trois euh, trois euros la xaw ma quatre xaw ma cinq euros waaw côté yooyu la daal côté yooyu la waaw comme maîtriser wu ma yooyu ñoom toldoog ñoom euh, seexu naa si ñoo gën a xam ñooñu ñoo te tamit dañoo dañoo jël xaalis bu bari jox këccëb pour drapeau diaspora bi dam leen tuddee drapeau waa diaspora bi waaw ñoom dañoo jël xaalis bu bari jàppalee ñu ko waaw mooy xale yi nga xamante ne dañuy xaar mbalit premier dernier combat bi ñu bàyyi porte bi ñooñu nag balaa loolu di xew dam leen di defal rang ku taxaw ma jox la billet nga dugg sama làmb ji moom mbalit du ci am waaw mukk du ci am. Pape daal moo fi nekkal ñëpp. waaw ñëpp ñëpp ñëpp. xeeboo kenn xeebuma kenn. maa ngi maa ngi invité ñëpp. ma kenn. maa ngi invité baaboo yi. Barodi Balla Beye numéro 2. jéggal naa ko maa ngi koy invité. maa ngi invité la de Guiers. maa ngi invité Eumeu Sène. la ñaga xujja. maa ngi invité ñëpp. Siteu waa jàmm gëni ma kenn Bombardier. groupe nit. maa ko wax groupe nit. maa lay invité. waaw <laughs> waaw. Ndeysaan kooko doon Pape Sara macha allah waxtaan wi dégg ngeen ko kon gars yi nañ waaj rek dimanche soreetul ñuy nuyu waa rente DKR yëpp di wax ne yàgguñu ci làmb bi ñëwaay tamit combat yi ñu taxawal kuy dund lamb rek boo ko déggee di nga xam ne hélas lamb ju neex di nga ko am dimanche incha allahu rabbi ñuy nuyu Alain Jogoy Jumbo ak Pape Sarr ak seen staff bi yëpp mais itam fi mu mujj am na solo muy diggante Assane Ndiaye ak i yi ay frère ngeen yéen a bokk Sénégal bokkati Bawol bokkati Serigne Touba bokk di ay jullit defe naa loolu dara ëpp ko kon nag nit nag di nga mer waaye mer day giif waxtaan leen joxante loxo te Pape Sarr loolu moo xam ne suñu partant ci fexe ba jàmmam ci seen diggante ndax lu dul jàmm jàmm ko gën kon yàlla nañu yàlla defal jàmmi àddina defal ñu jàmmi àllaaxira barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam